ku si sëy siwul dañ si njaaloo sëy nag moo ñu tax a jóg Baay Faal nag ñetti la sàmm say cër ba doom yàlla saxoo laa ilaaha illa loo am fop jox yàlla loolu di Baay Faal sëñ Cheikh Fall Mbaor dinaa faral di dégg si moom mu ne fekk tenue soldat ñu di ko jaay sa marché caaro yi nga jënd ko sol ko taxul nga doon soldat Baay Faal lu Cheikh di def sa jëmm bi kon yàlla nañ dolli taalibe defal ñu ngërëmal sëñ bi am na ko mën na ko